ñu ngi nii fii day train waaye nag taw bi moo so sorry guys am feeling to well ah coono dina ci soona soona boo xam ne yàlla rek a xam waaye nag still now taw bi ñu war leen tuuti ambiance ci paaj bi e ah yaram bi dafa soona dafa métti li ma def dee ba xam naa moo na ko wax ah yéen a gis ni ñi ba tey ñu fi nag despite with the rain but still people are out yéen a ko gis aji wane sa bopp wane sa sañse ah gis ne nit ñaa ngee ñëw yaa komba mu ngi ne moo Yakombo def na daalaam Yakombo wane sa sañ def na daal def meesam ma ne ko mu ngi sa bopp yaa ngi live on Facebook sura bugut a Yakombo <laughs> yaa ngi

yow démb loo dégg foo ko teg. waaw xanaa eh, taxawal wax man nag damaa sonn Médoune démb li nga teg foo ko teg li la Mbaye wax nga dellu cosaan Médoune. waaw mais xam nga rek Sénégal bi a dem bëggal askan bi. moo tax nga def loolu. ak ñoom.

dina nekk a little bit losses for them ñu ngi gis Saint Augustine ñu ne peace love jàmm rek moom la ñuy love indi indi wat leneen lu si tegu xaw ma ko yéen mi nekkoon seen Augustine lu nice la wa sen ha seen ah da nga ya nekk fi dama febar nak tey boys bi dama soona naka yéen a fi nekk tey waaw seen salon nag ndeysaan da ngeen a jaay nii wa wa dañoo tay t-shirt ci t-shirt last way la. Beera ñaata la ekkatil beera nga wane ko lile waaye wan boobu waaw. T-shirt yaa ngi nii. Twenty pounds la. So five pounds towards the school. Okay, towards St. Augustine. St. Augustine, St. Joseph. St. Joseph St. Augustine. Okay. Five pounds nga dem towards Sean Five sama téléphone day yàqu na. Ah te duñ ko jënde. Yaa ah ah damay côté lay ko de. Okay. Waaye taw waa ñu wàcc So five pounds dafa dem si Sean Five pounds dina dem si towards the school. Uh-huh. And ñu ngi jaay kii ring si. ak loolu moog la. bii nii ah, fridge. li fi oh, naan lii nii still waaw. en en en defar nañ bags tamit. waaw. macha allah bags yi tamit ñu jaay ndox ak ak ak ak ak crisp rek. all right pour pour lu ñu am rek pour school yi. pour school. waaw wala gannaaw tamit jàmm rek ah, benn bras. Both vibes always. Oh, Jamarek. Jamarek, okay. yeah. Wow. you're inspired inspire ba nga indi loolu Jamarek No si jublu loo si jublu As you know, the word Jamarek is just peace. They got all the commotion, all the things going on in the world now. So the thing about it, bringing the word Jamarek, spread the word. It's all about love. That's the answer. That's what Jamarek is all about. So we're wearing it in the Is it in collaboration with St. Augustine's or whatever? St. Augustine because um, oh, St. printing so we're printing, with St alright then. thank you for your time thank you Lily Lily thank you jërëjëf yéen ah, a ko gis waaye taw it's um, since alumni UK and Europe Wow, you basically we link with America uh-huh. Wow, you're ñu ñoom waa Amérique ñu ñoo ko door. five years ñu jël si de last year. waaw waaye ñu ngi woo ñoom together. waaw thank you so much ko bokkal li jërëjëf yéen a ko gis paak lañ leen a woon ah bu fekkee dafa leen dem rek wax leen ma ma samay light da ko defee gisante bi mën a leer ah lii yëpp ñu indi leen ko pour yéen mi nekk ci kër gi nga xam ne dara du leen umpa jaay yaa ngi ne ah ñii dañuy jaay moom a war leen ay yàppaa ngi ne ku biir na ma jégal ah yéen mi seetaan ah lu nekk fi ga lu nekk fi mun naa ibi ebe xaaral ma génne li li ñoŋ bala leen ma dippil ma yéen a ko gis ay sibu yëpp a fi nekk ay sibu mi ngi bala ma dippil ma ma na jaay eh maa ngi ñëw jënd yow merci ebe bool ñaata ebe mu ngi ni yéen ñi biir ngeen baalal ma yi laay waxal ñi seetaan yéen a ko gis ñu ne ebe bool 5 pound fii lu fi nekk ebe la yëpp ebe la mu ngi nii bool 5 pound ma ngi def suma life suma paree ñëw am amna buy am wojjo mbokk yi mu ngi jaay mboq mboq one pound ah. am na mid pay waaw mid pay baa ngeen ne la yow noo tudd ah. Sona naka. Fatim Sona naka nga gisee education like this bringing people together loo am pour waa yaram arts. man de ana kontaan si parce que Gambia nii nekk a ñun ñu booloo nekk a benn comme di jaay ñuy jaay suñu jaay ñu fay lekk ak ñu fi nekk dañ ko dee jégal lekk ak yooyu. dëgg la. ba pare saa yi nekk fii dafa kóot tam nga nekk si néeg bi doo dee dem fenn ak yooyu noonu comme yu mel ni every yaa nga koo atteindre dafa dafa neex daal nga nekk kontaan si daal. kontaan si waaw. ndax taw bi pour leen of yéen jaaykat yi. déedéet li fi ñu xanaa ñuy. waaye naka sales wise bi mbaa am ngeen because su fekkutoon ne toonaar bi na ëppale bi ko dem ba ñu si Youssou Ndour bi rek xëy ñu paaj waaw definitely voilà loolu rek moo nekk di disadvantages bari na alright then Sona la mu ngay jaay mu nekk ak Gambien lii dafa rafet ku wax ne Gambien yi dañ tayal fekk gisuloo si Sona doo toog ko waxati kon ñu naan la jërëjëf next year rek nga dooli cere dooli ñi ah dooli ñankatang dooli soom waaw kon ñu dem jërëjëf Sona yéen a ko gis sama caameñ nuyu naa la salaamaaleykum ey way, lo def looy jaay mbokk yow gambien nga sénégalais ndax guinéen foo bokk gambien yow doo gambien de yow da nga am sama couleur wa waa pap bi de ah yow doo gambien de hmm? mbokk mbooxa ñaata mbooxa benn ñaata benn mbooxa ñaata baal ma sama voix dafa dem bal ma rek suma voice bi dafa dem. ma ne Mbokha beera ñaata. one pound waaw. na moom bu ko yàlla si jàmm. ndax léegi ñu bu dee ci laaj bi teranga loolu a baax di na fekkee ko at yu bëree bëri nit ñi di mun a taw bi tey na defula dara. ndax gisee taw bi sax fi dem. taw lu bëri moom dina daan gën a fees Dan business bikin ngeen naa door comme ya so bayar yàlla bu jam jàmm bi mënu ci Kita dëgg la jërëjëf si sa understanding man ko jolof sa Namanya Abi College. Ah, d'accord. Jollof. Jollof what? Jollof services. We do air freight. Really? sea freight. Okay. Uh, just send bagage Gambia, right? We are the right person to contact. So when you start your Facebook, you get I'm gonna lolo commercial, like, you have to pay for it. Wow, wow. Yeah, free advertisement. Tell you don't. Man, I'm gonna boha. Ha, man. Man, man, man, you know, you when you just card them. Kon ñu dem. Betay startagul yéen a ko gis ni ah fii mit paay rap moo fi nekk ñu won leen rek tuuti ambiance su ngeen mun a mooy yëpp suma téléphone bi dafa tooy te waa yaram aat sam dañ ko jëndal wax dégg neex yàlla wu fii yéen a ko gis cake sweets pour xale yi yéen a leen gis ñëpp ñi ngi indi paransoor toog Malick Dieng amuloo li nga def sax Brix Tuli naka ana Lamine Lamine sa chéri mu ngi nii ah? waa Brix Tuli naka nga def yaa ngi ok waaw naka nga def yow gëj nañoo borom keek bu bi kii moo leen defal keek all time loo leen bugg ah keek bu neex a neex a neex mos naa ko. wedding cake cake bu la neexee laal yéen mi am birthday cake a mos naa ko and su ma leen ko waxee rek trust me waaw number baa ngi nii if you guys want to place your bookings that's the number yeah yeah lii la Gambia dem ci kanam am na mille pay ndeysaan daf ko def mu yomba 50 p man fi ay 50 p li yomba na de lu tax nga demee ak amount bi 50 p nañoo ba pare liy fare gis nañ ne boo xam ne. ndax taw Gambien yi dañ bugg a Gambien di mos a seen loxo luñ daay Gambien yëpp a ngi fi. yëpp a ngi fi du ko du booxa du gaanam keeg du naan boobu du olele du kaani kaani pita yëpp a ngi fi. liñ nga bee wonjo all homemade yëpp fresh. waaw lii la la naan buru. naan buru la nii. naan buru mu ngi nii. ak ay si buy. yéen a ko gis naan buru. ay si buy. waaye li yomb na di one pound olele soosi kaani. macha allah ñun namuñ Banjul tey ah. ma ne ko macha allah namuñ Banjul gis nga one pound moo jaayee woon jo man tiit fifty p ah fifty p ah sa diwlin war koo fray macha allah buru naan buru la ñoom fa tamit ñëpp a ngi ne ci biir kon ñu wane rek section diwtir mu ngi nii Smiling Coast ñoo fi nekk ñoom ñooy jaay yow ñu ngi tassé rek yaa ko halé ni sey lii laay facebook nga nak bu ma wax ah sey Mrs ngade do miss ah Mrs ngade mrs ngade do miss ah ba pare da nga nggak da nga ron charity da nga wara sété good example ah ah ya nga set ya nga ron charity ah? ah No no no no, sey li li ah li li, hola, li li li li, yaa ngi ron charity ah set by example lo lañ wax enjoy yourself. lead by example. ah naka after ma teacher leen. mbaa am nga form. am na waaye sama honestly. Mm. mari ngi fay xanaa abal ma soram bi mang la na lay fa sey abal ma sor bi man bala ma toy wa naa ko indi jaayi la wa degal li yow li neex na mbokk dafa neex suma mbokk ak ma jàppale mune ma lay bi ma téye paransooram am naa ko amna ko reele wa waaw yow lii duñ ko wax laay maa ngi ñëwaat dégguloo ah c'est te woon na xam nga sa sa background xamuloo ko bu baax ah. ah ñor mu ngi fay xoolal sey lim def yéen gars yi Smiling Coast ñoo fi indi lii kaba ñu ngi am ganaar ah ñu ngi am diwtiir yéen mi ñëw fii bu ko jëndee diwtiir pour yóbbuwaale ko Smiling Coast am nañ ko. sëy kon ñu dox dox bi waaw.

dee ñooro ma ne ko yaata Gambia jooyuñ ah, man nag tey dama feebar waxu bari mënu ma ko nag honestly yéen a gis ne mooy jaay lii ndax kan Fatou Thiam Fatou Thiam Jobaate ñu ne moom moom lii Thiam Baba Demba sama ñeeñoo bu ñaawul bi sama bala mañ sama bala mañ sa bi def lii yéene ko gis ana sama gaay yi jigéen ñi ay ñu fi ko ci charité bi ah seen i gi soo bi eh waay Samba man alaaji man mënuma romba fii sama parasol alaaji gi dama war em nag alaaji gi man dama tey dama feebar alaaji lii ceeb la ndax lan la de ceeb ceeb yàq yaay tooga nii ci góor ah alaaji ah alaaji yaa def lii alaaji si furno bi daa koo dooree yëpp bàjjul nga ko jëlee ah alaaji gay yëpp bàjjul ndeysaan ku ne gambien si dañ leen si xooluloo si alaaji gay ku ne gambien si dañ tayal xooluloo si alaaji gay ku ne gambien si mënuñu ñoo def rek wala amuñ ay jàmbaar rek xooluloo ci Gueye Nioro macha allah alaaji Gueye yal borom Gueye Nioro Gueye Enterprise mooy def nii xam naa sax ay yaram dina daw gis seen i jigéen di daan dooleem lim leen indil bu leen xeebal diyal leen ko ko gis taw bi mu naaj mu sunoo alaaji yéen ci biir dina ko gis kon ñu dox dox bi rek alaaji lii ebe laa ne raboo laa bëgg a ñu téel ma maa ngi bool ñaata ebe three pound Alaaji Gey ebem bi mu ngi ñëw soolaaw ci members am yaa ngi nii naka nga def yaa ngi oraay yaa ko maa ngi yow gis ngeen benn tey mun ta start ah yéen a gis background bi gars yi ñëw nañ waaye weeda bi definitely it's a big loss is Priyaram Arts because ñii tamit dañ fay di jaay ah waaye nag mbiri yàlla mu nañ ko prédiga fii laa génn lii <laughs> ñàlla nii sax Gambia lan smiling coast of Africa ah mu ne lii lan la nii Marie Gambia Tourism Board ok ñi ñooy di Gambia No no no no no. ah Gambia Tourism about lan la flight home ndax lan la yëpp waaye dañ def ah anything tourism So then soo leen amee question send them for in You like leen because Gambia dañ get complain You know suñ kilosi. especially daf leen daw loolu leen am waaw kilo si léegi safety flight capacity bagage understand you can pay for the extra or flight for the kilos or Indian Union flights yoo xam ne dañ two of twenty three kilos. hotels are available for the diaspora. waaw léegi loolu lañ wax gars last year. because we're duñ ko bàyyi am the option. I fly to mun I fees ba mu ko a

siya lang yung desisyon. Alam mo ko ne siya lang yung desisyon. Siya lang na ko. Hindi um, nga rin wor. Kung na na muna eh. Namun yung option yung bari. Wow. Ay, kung na lang ba? Option ba? Option amon niya rak lang. Gampe ko le. Um, SM Bros. Option ko lang gambe experience. Gambe experience all year round. All of them wrong us in Brussels. very full. Royal Air Morocco. Royal Air Morocco goes around everywhere. Yeah, they want that direct flight talking about. It's only one some people don't want to go uh, anyway. Like me, six hours you I don't want to go back. Well, absolutely. because Johnny B. Wow. because I have a brother coming all the way from Gambia. Of course, it took him over 20 hours flight, Johnny just to come back to the UK. So absolutely, Lugoda Lulu. Wow. Yeah, we will take it. Wow, because you're here to represent. We want you, you know, you get all just complaints is here. Wow. Gambians, they go through pain, especially to season. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. ci loolu saka léegi ne Gambie dañ dee go through a lot saka su season bi tëjee ba pare jamono yi ku nekk xam na ne Gambie am sort of democracy or democracy ñëpp a bëgg dem jamono jooju xëy di nga xam ne bëgguma dem for some reason waaye léegi yoon bi ibeeku la ñu bari ñoo bëgg a dem yoon bi léegi Gambie experience comme ni ngeen ko waxee bi ngeen bëgg direct part bi increase capacity. Capacity. waaw increase capacity. as of uh, October inshallah this year inshallah in taking flight. oh, nuggets. Hey ay waay Samba gis naa fi ku mel ni Eva man wax naa la xel day not just because they, they can walk as much as they want all there. Underneath we're talking about. Wow, okay, so now what, do, what options do we have? We want, we want them to increase the bagayaras. It's all over the world. Ghana yeah. is the same, but yeah. they have 50 kilos. Yeah. And a handler. Wow, Senegal, I mean, I'm mean, like 46 Senegal kilos. As well, 46. Yeah. Everywhere else yeah. go. When I went to Senegal, I got two suitcases and a handler. How would you pay for the to Senegal? less than, less than 500 pounds. Christmas time. Christmas time, four of us over the river, almost. Pressure is the pressure. The the government is to put that pressure on government people, our people are complaining. Yeah, everyone left them. Miri flag la ñoo wax yeen mi day sen kilos ci kilos send leen your comments please send nañ in your comment wala seen difficultés yi ngeen in fay face, jot bi ñii ñoo fi représental di Gambia the Mali Coast of Africa Gambia experience I bet I can stand to be corrected or I stand to be corrected pour fly it. so Lola, you're And then they know why we stop talking we went to um, uh, our baggage were being stolen. I had a bag stolen with curfew. But that's why there was one people leave. Yeah. The family could come stand. I didn't but Turkish Airlines now, you know, I we told them, but they said that from direct flight. No, even if it's okay with the Chilos, people don't mind. But what, what, yeah, but no matter how exactly. Ñun suñ number one, ñun suñ number one query mooy kilos yi because xam nañ ne dañoo dem home. Talking about the kilos, if you want to pay? what am I there are options. Yes. Understand Because you also need flight with the fares. Why in return, if you want to pay for more kilos, then you there allow for you to do more baggage. Yeah. Wow. But the flight is small. Don't Lola guy complain or your lingawa. Wow. Why Okay, tey suñ bëggee jaay or you def extra Then you you you. I I I'm to buy have think We here, here, here we're for dañu dee jaay non. here, dafa mel ni que lii issue la dinañ ci ñëw gën cee wax waaye ñu leen a jërëjëf bi ko gars yi ñu ne déglu leen waaw dinañ def special interview ak ñi jafe-jafe flight si incha allah rabi because ngeen ne déggu leen leen waaye lu ñu doon wax it was very important ñu ngi nii fii ñu ne laan forward safeguarding rights and dignity ooy man ñi lay wóor de xale yooyu seen papay di biiral ñi war naa gisante ak ñoom biir Banjul ah we are working for the day when Africa girls and women live in dignity are healthy have choices and enjoy equal rights free from fear of gender violence ñoom ñoo ko fi tawal human rights lañ si kanam tuuti dinañ ñëw jokkoo ak ñoom ñu jàppale ñu ci yooyu nga xam ne mu ngi xapoon indi Gambia papa yi nga xam ne ñu ngi biral seen ay doom te kenn déggu ci dara kenn waxu ci anything kenn defu ci anything dinañ ñëw jokkook ñii su ko defee ñu seddax nañu mën a dimbale kon ñu jàll dem ci leneen ah? leneen mooy lan fii fii fa la nii yéen papas la ndax ah Papa la ana Papa <laughs> ana sama magi bopp bi mba bilaay yow maa fa woon démb yow ah bro kii suma mag la Papa Sarr Papas ma Papas Land mu ngi nii Papas what do we have today for the menu lan la ñu am tey on the menu board. yes what's that lii la yeah prawns cocktail. prawns cocktail ak lan la ñu am. brossel chicken barbecue. moom loolu la am Papas loolu la am tey. ndeysaan nit ñi bëgg nañoo génn waaye wér bi nangu yéen ko gis leket ay waay dellu nañ ci maam ya leket leket leket ah baax na pour teg ma tànn ceeb sebet ah yëpp ngi nii ma ko leket a ngi nii biibal na ni inde ani ngi yëpp ani cuuraay la Afrika lañ de hmm? ma ne ko jóge africa wonjo muy kaba lu nekkaa fi nekk yéen ko gisal seen boppa taw bi dafa bañ ey waay Samba lii lan la ni yow dafa am nak ñi nga xamne jamono yi dañu wan lok ah ay aji aji aax dafa sew de ah li dar fi fi la aax dafa sew uyu len anti joo anti joo <laughs> mo anti joo jo togal dama feebar ah <laughs> ma dama soora si anti joo jo namo namo eh sasa sasatale man man wurono bi man wurino sasatale yisundula yo sasa namo namo ye pare bate kalo bondi bam ntolbe duniya le kono nyin kalo bondi nyi ye la pare jibe ba ke channel ye wala dunde ye la mo ye pare ba ke le ko kore du kore bi ma man sahaba ke itere nyin ke eh anti dai mom yo ha xëyna ewul eh, gar naa laajte mënuma nelaw ana xale xale ñëw ñu gis ya dañ ma dee sonal ma rek a hello Wolverhampton crew hello Aunty Ndeye ah. you alright they are saying okay namo fii fan la ñu ngi ñoo jaay ñambe ñebe mënuma gis naam naka jey jey naka nga def yaa ngi ok gis naa moom yi démba maa ngi ñëwoon si kër bi maa leen ba fekka naka nga def zeyna moom ñëwul di saay daanoo rek yéen ngi da ngeen ñëwoon si parc ah gis ngeen ko where is Aji she's not here oh she's somewhere here okay Fufu mini, dia kwa fufu. Ha? Bera ci ya beñe be. Dire dara la. Ora le. E ma fine ka. Ora la yo. Ora ko ñepp fi nekk. Yow tonal sa sanse bi rafet na de. Ci sanse rafet na. Gis ngeen ko. ndeysaan xale yi dañ bëgg a génn tey la waaye tay taw bi daal nanguwul dafa mel ni que mbooxa dafa populaire di siyee rek tos ko jaay bari nañ ana jigéen ñuy sëy bunge naa leen seeni cabinet ana jeeg ñuy sëy si leen ma nag tey ci buwaa taxu koo saxa bu baax lu soo am nan saxa baakee yëpp ci Youssou Ndour bi def nii de ah ana jigéen ñi gunge naa leen seen i cabinet wax naa leen ngeen bàyyi di use produit yooyu noonu ñëw leen ci ah xaaral bu ko dee tuuti ma laaj rek bagage fan la fi ñu koy ak fi ñu koy teg lu dafa am place wax naa leen waral dafa am cuuraayam cabinet am cuuraayam saal am cuuraayam buñ mix ah nañ ko dee blend bu nekk war dem place waaye boo jëlee bu ma nag def ko si saal sëñ daal di ci rawatina su amee asma dina métteeg yow salaamaaleykum dafa mel ni kii bii lii lan la ni moom la aji di traay nii moom lañ traay nii nga jeeg setan ñu ngi lo ñi sëy bagas am ci bagage ah bagage yi yëppan bi yëppan bi lii lan la ba laal ba lan fexeel ba laal eh dégguma <laughs> dégguma dégguma ay cuuraay dolli ma nga ne fexeel ba laal ma ay waay samba yéen a ko dégg ah <laughs> mu ne fexeel ba laal ma mu fi ak banati bii sooy tëdd bii mooy fexeel ba laal ma bii mooy fexeel laal 499 499 waaw li moo ay tudd ak ba laal. koo ah. ah. Ah, baax na mu ne bii xel ba laal ma jarul okk moo lay okk man ma ragal ne box bi yëpp laa yëgu li ma dama bari daalin yoo xam ne su ma fi génnee rek ah dina méttee man kon ñu dem. ñu ngi nii fii tey di Gambia United Society together for a common good ñoom itamit non démocratie neex na de lu nekk lay gis tey gisuma ko woon last year two years ago ah di together for a common good macha allah ñoom itamit ñu ngi def seen mbir di def seen i am seen organisation ñu ngi nii di jaay di seetaan lu gaay am. Women's Foundation Trust, our mission is to educate and empower women and young girls about sex harassment, rape, teenage pregnancy, early marriage, sexual health, prostitution, FGM. yéen phase one ñun jigéen ñi lañ fi toog xaara ah, ñu laaj leen rek na ngeen def yéen a ngi ok dañ gis lii nii naka la tudda WFT is it different from the Gambia United ah dafa different waaw man maa loolu bëgg confuse tuuti loo ñu mën a wasili because dañ gis nga ne women empowerment and then young girls ñu gis ngeen def sexual harassment rape yéen yéen ay ñan ak lan ngeen di taxaw my life yes You are sorry, sorry. It's my fault. I should have informed you earlier. You are live on Facebook with Gambian right. Talents, uh, yeah. Women's Foundation Trust is all about women empowerment. Okay. Basically, we are. Um, Basically, sorry. Yeah. <laughs> I know, sorry, sorry. I, I, I, totally understand. Some people, when they are alive, they, yeah. Some people, when they are alive, they can talk. Yeah, I talk right now. That's fine. Um, is there anyone who can speak on your behalf? all about Uh huh. And what we do is I all we do is empower women uh their sexual health, their rights, and everything that they need to know. Mostly in Gambia, most of, people are mostly in the Gambia. Yeah. Okay. So what, what we do is. Um, we're based mostly in Gambia. So okay. And um, schools. Okay, in schools. But are you guys, is your organization aware of the harassment going in the Gambia yes, now? We are. girls being pregnant by their dads? Yes. Are you aware of it? Yes, we are aware of it. So what steps are you guys taking to help um, those people? steps that we're taking at the moment, we're planning to do a documentary because we have lots of um, kids or teenagers that are raised by their own parents. parents their fathers, uncles, and relatives, or friends, or whatever. Um, but people do not like talking about it. That's why it's something that is brushed underneath the carpet. Absolutely. But um, it's about time we talk about it. That's right. So, what about if anybody want to be in contact with you guys? How will we they get in? Facebook. Okay. Do you have any contact for you to give out? We are, we are on Facebook. Just type your Women's Foundation Trust, and we are there. Okay. Yes. All right o yéen a ko déggal seen i boppa nice ¿ah? ¿Ah? you look pretty do you know you look very nice I like your makeup yeah she did it you are very good in makeup <laughs> yéen a ko dégg ah? women's empowerment la yéen ñooñu nga xam ne seen ay doom euh, seen i jëkkër wala seen i papa ñoo ko biiral ñii ñu ngi taxaw pour dox loolu noonu ñu ne yëg nañ ni mel dinañ si dox dox yi ñaxtu kon ñu dañ def jokkoo ak ñoom ci kanam bu ñu paree live bi jël ak ñoom nomba pour wane na won ne leen xale yooyu toog ci kër gi seen i papa biiral leen xale yooyu dañ war a dem school ban jéego la ñuy dox pour minister of education war a mun a seen xale yooyu back to school nga xam ne foofu lañ dëkk du seen place they all want to go back to school ñu ngi leen a dimbalee si kanam dinañ jokkoo rek ñëw buñ génnee live ñu ñëw fii ñu ne el el lively a lively hope okay for children and young in need foundation waaye tey moom dama there's a lot of foundation here honestly democracy neex na moom a lot of foundation Laughing is our objective yeah loolu ñu mun a wax si foundation bi kon waaw waaye a bicycle project bi ok bicycle project waaye xale ne dañ di am gëm-gëm bu la demee school waaw lu ma jaay nii dañ ko boole ak lu am sofa bu ñu la bàyyi bu fi lañ ko jëlee pour seen ko ok kon yéen a ko ah. what about if people want to be in contact naka la ñoo nekkee in contact with you guys ah, contact everything a ngi nii Facebook am website what about su leen nit ñi bëggee join ku nekk members nag et eh, member um, grown up nag egg stage ñu just start the young stage oh da ngeen start trust bi rek waaw okay dañ ko ne min ada fa la stage ne expand okay trust me, Fila, is it based here or back home for fee, a Gambia a Gambia fii homeless dañ leen diral with xale you. ci oh fii homeless Gambia moom is mainly education dañu waaw foofu tam nee nañu because am na Gambian yoo xam ne wax dëgg ne yàlla live daf dee mun a dem rough on their side Wow, moo tax may leen seen contact na am solo su ko defee ñu mun leen a mun a reach ndax fu nekk indi UK ngeen dee mun a dimbale na ndax da ngeen am specific areas. Um, in terms of what? In terms of homelessness. Homeless, not not London, lañ focus on. Not London. Only Seven Sisters, Green Lane, oh, okay. House. So, go and focus. Ah, London. Wow, okay. I think um, London one ok yéen a ko waaye mu ne yéen mi nekk boori lot not euh, London euh, foofu la gars yi focus waaw ok all then mu ne Aida thank you Aida thank you thank you for your time Aida kon nag Aida Ndiaye gis am teel bi transport teel gis ngeen nii Ndiog Malick xoolal lii ñii buñ fi paree dañoo ñibbi lii daw na yaram moo tax may la Ndiog Malick lii boo ko bëggee xañ nit ñi boo moytu yow dañ laa mujjee yow sa bopp lañ lay xañ sa bopp xaw ma ndax dégg nga fi may waxee boo ñu bëggee xañ lii gis nga leen buñ fi jógee ah dañ jël seen i van dañoo jógee ñibbi ñi ñëwoon si sabar bi la 3D event bi hmm? def seen i wóolis toog ni si paak bi di xaar seen i moto mu pare nit ñi tamit dañ leen dee war di leen sóoraale ñu ne leen jëf because tey weda bi nu mel nii ñëpp génn si mënoon nañoo toog suñ néegi ku nekk ngi am sa warm house boo xam ne mënoon nga faa toog gis nga leen ñi tam dañoo jaay hmm? what's that is it chicken is it grilled chicken yeah okay oh that looks nice how much is that one two pounds for one okay this is chicken oh it's all chicken okay all right what's the name of the company Ramsen. Ramsin. It seems like Ramsen doesn't want to be on camera, but you are very good to be in front of camera, aren't you? Yeah. <laughs> I like that one. you like this one? <laughs> Yes, it's very nice. Yeah. Very, very nice. Yeah, it's brushing. You want to try it? I'll try one. I'll come and buy one and try it, yeah? Yeah. In a minute, when I finish doing what I'm doing. Oh, hello, Aji, you all right? Yeah. How are you? fine. Your dad couldn't make it because of the rain. You having fun? Yeah. Huh? Where's Sammy? Sammy's at home. Is at home? Yeah. All right then. You take care. I'll see you in a bit, yeah? Okay. Here I go, fii nii tamit ñu ñëwaat fii women empowerment project international to empower girls and women to be strong say no to FGM female genital mutilation let's end it together uh, say no to child marriage ñoom loolu la ñoo wax ñooy avocat yi jigéen ñi la ñom jigen ñi nga xamante da ngeen a yóbbu xaraf ci yoy lañuy yëngu ak xalé jigen ñi nga xamne da ngeen dé forcer ñu teel sey trust bi oh association bi ci lool lañ dé yëngatu kon ñu ñëwaat fi ba tey ba tey ci park bi hello na ngeen def ay way samba yow gis nga ni nan ni nguña benn bool mo des dafa mel ni benn dess a des bi ñaata la five pounds. Nenu five Wow. Lila la fine. Fine. Wow. uyu len fine from Banjul fine. li pita cola kola mu Wow. Pita cola, pita cola. uyu len yen mi dee pita cola. Nan buru. buubu moom itamit mu ngi jaay ko buy wonjo buy wonjo yëpp fi nekk mu ne ak kaba diwtiir yëpp a ngi fi loo leen bëgg rek parce que ñi nga dañ outside London man bi xale yi bitim réew na fii lañ ma dee métti sedd bi ak taw bi waaye nañ fexe ba génnee ay pound si seen kalpe yaay dem jënd li nga xam ne mooy ice cream ice cream man bi moom it ci biir moom it tamit ñëpp a ngi ci biir ah su doon nekk lañ wax ñëpp lañ dee xëjal yaram aar xëjal nañ ñëpp ñu demee nii rek foog naa fii moo des mooy eej bi dafa mel ni taw bi xal na moo wàññeeku léegi tey page bi start incha allahu rabi gis ni na ngeen def yéen ngi ok loo leen jaay ni waaw yow moom dafa mel ni nañ la de waaw yow xamee nañ la kay yow yaaga nga waaw yaaga nga waaw lii lan la ni kasu kasu no groundnut cake waaw yéen daf ko paqueté groundnut cake yi yéen ko gis dañ ko paquet paquet soosu kaani soosu kaane bi moom ñaata kaba butéel six pounds cere lii lu mu doon moom li nekk ci ah baobab sweet d'accord léeg mu doon ay beñe li ne ci mbuus bi beñe la waaw beñe ya ñu bàyyi gaay rek client yi ñu dugg jaay Moustapha Ibe Niadi ah gis ah, daw leen de ku bëggul bi tekki turn your back <laughs> turn your back <laughs> haya you're right ah, Mbassa yaa ngi ok yaa ngi fay gaay ñu ngi ni ñoom tamit ñëpp a génn si naa ngi ok Sam Jeyte nga xamee ngeen ko moom itamit ci media bi la waaye tey dafa bañ a def coverage ak démba yëpp dafa sañse moom madame def sanseem mo madam mu ñew uyu suñu Youssou Ndour Sadio nakam yaa ngi oké <laughs> Sadio xaaral ma ñëw xaaral ma génn live ba bayima ma <laughs> xaaral ma génn live Facebook bu ma yóbbu nak <laughs> man Sadio do may jox aduna de baxna na ñu ngi ni fi tamit mbooxa la ba naa leen iya bi mbooxa dafa popula Ousmane ça va ah, suma magi bopp anti aji ah. na def yaa ngi oraay naka paag bi ah, naam noo def yaa ngi defuma dara suma doom yi ñëwuñu at bi suma <laughs> yaama rek maa ngi faay ñu ngi faay Oyou Mbaye kaay Kumba Mbaye ñëwal yow Kumba Mbaye kaay eh lii daf lay defee am de eh Kumba bu ma wax la waaye tey eh suma mag dafa sañse nag suma mag dafa sañse eh suma mag dafa sañse arma woo génnee suma sañse mag bi mu ne ñu génnee góor bi non ñu sant Sarr nag nii lañ mel dañoo bëgg a àdduna ba buñ magee sax duñ arrêté non duñ paak seeni taxi de mu dañuy dem rek Eh, ba essence <laughs> ya. bi jeex wala ndox bi jeex defuma dara kontaan nañ ci paak déedéet taw bee ko yaa waaw taw bi kay waaye nag yàlla baax na ndox moom wërsëg la dëgg la waaw yal nañ ko fekkee bare bare amin waaye xëj na lu munta ñàkkal waaye samse nga de magi jàmbur ya, ah Ya def ni sa rooba macha allah ya, ah ak xeeb ànd ak sa yumpaay def na baagam bu baax macha allah eh eh li ëpp naa <laughs> Ousmane Ousmane looy jaay loolu pop ana basket bi tey gisuñu leen ngeen active bu baax di Ousmane waaw dafa mu ngi dem mu ngi dem daaw léegi tey ambiance bi stade ah? foundation ba tey de ah si lii laay wax si foundation yi ah maa ngi am clash with the foundation people de too many too many foundation all in the name of the Gambia tiny Gambia. Hmm? It's is good, you know, because if you see people are doing it now, it's just for help Gambia people. You know, the government, you know, because Gambia right now, whether you are disabled or not, many people need, need to be helped because it's not easy. But at least here, it's much better, you know. So whatever we can send back home, it's definitely going to be very helpful. Mara Mustafa, yeah. Wow, Usman, go. But uh, because disability in the Gambia, we all know how hard it is. Absolutely. And uh, moreover, you know, talk about the discrimination, the family, because you know, like the main aims and objective of this foundation is to educate. because education is the key to success for everything. Absolutely. You know, and if you see people are discriminated, it's because they don't know. So once they know, then everybody will be aware and everybody will support and then people with disability will be very happy because you can see that they are very productive, you know, in society and at the same time go to school, get jobs, you know, participate in nation building. So we are calling anyone, you know, anyone who can help. You are highly welcome. Anyone who wants to initiate things like this, you are highly welcome because I alone cannot do it, you know, or one foundation cannot do it two, three, four pounds, some ten pounders, some gross they can touch all the angles of Gambia. Definitely. Yeah, thank God, you know, for the past three years, you know, at least we've been sensitizing people, changing people's life. So it's just step by step because with the young founders, it takes time, you know, to grow. Alhamdulillah, people know what we do and people have seen some of the achievements, which is the most important things. It's not, it's, I've been very quiet because, you know, my family has not been very... Absolutely, yeah. yeah so, You've been but, very quiet, Listen, Yeah, but Alhamdulillah, you know, hopefully, you know, next year come back full force, you know, to see if I can help disabled people more. Because right now in the Gambia, you know, we don't, there is no better structure for them. Nothing. We talk about access. You know, we talk about employment. You know, we talk about awareness, everything now. And you know, the government alone cannot do it. So we need people like us or any other person, you know, who want to help you know, to support my fellow people with disability in the Gambia. So hopefully next year we're going to come with lots of projects, lots of development, you know, lots of awareness. Because I myself, I'll be going to the Gambia, so you know, I've not been to the Gambia yet. So if I go to the Gambia, there are lots of lots of structures, logistics that need to be done, you know, to make this foundation to become higher and higher. But thank God, Alhamdulillah, you know, there are lots of achievements that's been achieved for the past you know, three years. Which is I'm very, very happy, you know, because it's not easy for the foundation. Thank you. All right, thank you. Thank you for your time. Mustafa, iba nyari. Mustafa, famo kena. Huh? Ibi jaar waaw yéen a ko gis noonu ñoom itamit comme lu gaay wax ah Mustafa ile yenje min Mustafa ite man tala ite ka Facebook le jibe Mustafa ah Mustafa ite man tela Mustafa ite kan tejele ni ite man tela disundur kudum 4 <laughs> 4 o'clock <laughs> Mustafa du kare du kare kare de jere Mari bari kak murati na imana nah, yusundu kita bukan awo yusundu eh Mustafa andu nyin di atas ada. nyin ta kela kos le dundu ah Mustafa next time be na tele yalla ah next year yusundu be na le de ni ala sota abara ka bake ngay ko abara ka ah yere gis xale yi ñu ngi ni ah kaf ak lagi lañu fi Eva ambian, ah, zero stress Euh, bokkul samay deret euh, raxuma ci sax waruma ko ci jaama rek laay séntu waaye nag taw bi bàyyi na arrêté na ñu ngi génnee koofa si fu si mën a ñëw stade yéen ko gis ne ñu ngi oote ñu war a ñëw gis this time around amuñ luñ leen wax dañ leen criticise on last year and they take it positively ah, lii lañ leen waxoon because amutoon pin xam naa ne dem nañ si council bi Ndiog Malick ñu jox leen enough pin yi nga xam ne lii wax dëgg ne yàlla ku ko gis na foo sànni sa mbalit leen tooñ honestly wow but last year Euh, li nekk fi woon wala bu fi nekkee sax manqué woon na bu baax a baax waaye dis dia yokka nañ ko yéen a gis clean na si fële ci gannaaw so moo leen a woon ne suñ ñëwee ñu gis event si ñun si liggéey mooy ñu pass on li nga xam ne moom lañ gis ne it wasn't working right for them yéen a gis gars yi nii ngi liggéey clean na si bëgguma koo wone because awma consent dafa liggéey moo tam muy ñii di romba ah papa Ousmane mii di romba lay wax ne kii di dem nii moo ne gannaawam kële kaw ko lay wax yéen a gis mbalit kon mu ngi nii ba pare defal nañu wanak fële ndele bi ko amutoon waaye yii yëpp indi nañ ko comme li ma dee wax na rek bu occasion amee foofu ngay jàngee pour ëllëg bu beneen yoonatee boo koo def def ko different bi foog naa ñëpp xam nañ loolu ci dëkk bi ne all the time ko dee laaj ko gis sound system baa ngi noonu It's all about the All White Party. Uh, all White Party bisa ambu deh. Timbang ini. Mana kok timbang ini? Jom mari kita pamit ikut sok. Hah? <laughs> Mang la Bawa dila Bawa legi Bawa fay Bawa Mang Bawa maketal. Ah. Bawa jaya. Bawa ah. jaya. Bawa <laughs> jaya. Bawa way.

amul lu mu leen wax honestly try ngeen trop try ngeen waaw ñëpp Kër Fatou Kër Fatou waaw waaw macha allah waaye gis nga góor démba Valentine waaw Val gis nga Val waaw waaw waaye yow dinañ waxoon nit ñi jërëjëf waaw Babou Ndiaye Babou Ndiaye fa ngeen gën a de wax nit ñi jërëjëf waaw dinañ leen invite ngeen wax nit ñi jërëjëf ko solo taw bi nit ñi ñëpp ñëw nit ñi mënoon nañoo toog seen kër and it would have been lost so yaram aar te da ngeen a fay ñii maag waaw this year try again? mashallah mashallah mashallah eh huyu len huyu len eh eh huyu huyu eh jalan kaisan ah ada pokok sama jalan Jangan lupa like, share,